xalaat na am na feneen fu mu yóbbaat làmb daal nga xam parce que su may seetaan làmb wax dëgg yàlla euh, arène bi bu mu commencé ba léegi gisagu mu mel noonu wax dëgg yàlla ba tax na di sant yàlla baax a baax di wax vraiment kontaan nañ yàlla na ndam bi continuer nii partir incha allah. Euh, maanaam démb su ma ñëwee ci démb Modou li nga wax arène bi mësul mel nii loolu nga wax. mais tamit Modou defe naa dem lay doog a ñëw arène ah, ba mu nekkee eh, arène nationale dañu fay bëri. waaw waaw ba tey dem mu laa fay soog a dem depuis ñu ko inauguré woon parce que xam nga rek um, wax dëgg yàlla li may dem ah, combat bariwul trop trop trop xam nga parce que chaque fois rek mun fekk la ci ay yëngu-yëngu wala sax nga génne ak yooyu noonu quoi ba tax na dem la yàlla dogal ma dem stade. vraiment kontaan bu baax a baax a baax xam nga ambiance bi am na maanaam yóbbuwaat na daal feneen làmb combat démb bi incha allah yóbbuwaat na feneen làmb. mais Modou Deme yëgaat na boppam ci làmb daa mel ni de. a ah non ci yëg wala kay laa dëgg kay. waaw waaw parce que xam nga. ma ne ko booy nekk ci biir moom ci ngay gën a yëg affaire yi tam vraiment démb tamit ak bi xam nga vraiment bett nañu trop. xam nañu amateurs yeeg supporters yi namm nañu bu baax a baax a baax. waaw di wax rek incha allah daal ñoo ngi ci entraînement yi incha allah di xaar ñu jàppat combat bi rek ñu ñëwaat bu soobee yàlla incha bi amoon démb fi mu toll yaa ko wax ci dayo supporter ak yooyu ak amateur ni ñu wuyusee mu mel ni coow combat bi nag yow ak Eumeu Sène yéen a gën a taal coowu combat bi ak Père Ndiouga waaye yow sa wax ja nga ca wax ne di combat gëm nga ne Franc man daa mel ni tamit da ngaa dugal waa Pikine ci combat bi. waaw parce que comme ni ma wax rek loolu laa gëm ta xam ma te noonu laa ko gëmee tey tey bu ñu waxoon noonu laa wax incha allah mais comme ni wax lamb la woon xam nga day am xasante ku ci nekk xam nga bàq sa mbër ko ni nga war a jàppee wax nañ liñ ci wax alhamdulilah yàlla suturaal nañu may ñu ndam yàlla na ci yeneen ndam topp incha allah ñu am combat yëpp fii parcelle yëpp yàlla may leen ndam soog démérité wul puisque def na li a def mais comme lamb noonu la ñu ngi koy encouragé bu amee benn combat incha may ko ndam incha lamb la. loo gëmoon ci Franc ba jàpp ne dix combat day daan soq ak loo gisoon ci ay faible yu tax nga gëm loolu wax ko. waaw ah, bu dul dara ñun ay acteur lañ ba pare tamit dañuy saraan lamb xam nga wax dëgg yàlla ku waxul waxu supporter xam nga wax logique xam nga di nga xam ni mooy loolu daal comme ni ma la wax daal loolu laa gis ci Franc liggéey na xam nga xale la macha allah yàlla may na ko kattan yàlla na yokku te am na xam-xam ci bëre puisque comme. félicité Franc encore une fois di sox comme ni ñu ko waxee. Franc léegi yoonu làmbam bu ma la ko doon laaj loo may wax. waaw yoonu làmbam comme ñu ko ñëpp gisee rek instant moom ku bëlul ak moom rek am na looy moytu quoi ah wax dëgg yàlla amul ku ko war a mën a bañ ci làmb parce que def na ay preuve am defe naa démb mooy onzième combat am onze victoire xam nga te wax dëgg yàlla ñi mu daan ci cinq combat bi mu yëpp chaque combat dañ naan du ci génn xam nga yàlla suturaal ko ci def na ay preuve am li mu war a def yëpp def na ko ku ko ku ko ku ko ku ku waaw ku ko bañ moom dafa am looy sóor rek wala nga ñëwewul wax dëgg yàlla. nee na sër ba génneegu ko Pikine parce que nee na ñoom ñett ñi des nañu ñëw ma ne ko ku la gënal mu ne moom ñoom ñooy choisir. a ah, ñooy choisir comme ni waxtaan la wax comme ni mu ko waxee rek nañu waxtaan ñoom xool kuñ koy joxaat incha allah. Hmm. ma ne ko ama am na lu ko naqari lool mu ne dina gën a am lu ko naqari ndax dinaa ngembaat du mu dem jëflanteeg moom wan ko boppam mu gën a am naqar lool de la wax. incha allah kay bu soobee yàlla bu ñëwaatee rek def leen comme ni leen def dem incha allahu taala. sa digganteeg ama. non bu soobee yàlla loolu kay moom wax dëgg yàlla aw ma ci xel ñaar. waaw. Hmm. Ah, fii am fii soq ja fii kii jaarale soq. fi fara dama wax lamb moo baaxu ay wax. isam la mais ku ci nekk xam nga ku la mën. lamb ak wax ñoo ànd sa combat diw wax ba ne diw bu jàppee diw ray ko mais saa yi xamante nañ saway waay du ñu gan ci làmb xam nga dañu ñëw def suñu preuve def suñu flag suñu fayda man ama kiiwul pour jël ma de man maa man maa décidé woon su yàlla maye ma jël couronne booy laay jël may leen seen sax du ma wax ay booy ay morom lañ ko parce que mag mageewu ma leen lu ma leen wax booy xam nga mais coow li bari na bari na bari na mais comme démb rek. lamb moom lu ñu naan xaw ma lan wala tell ko ñëw ci pind bi nga yem yàlla baax na yàlla may talak fekk bañ jàpp mais balde balde bi daa bëri sañ-sañ muudu te dalaa ñeme lool ah ñun yeggaguñu foofu sama sañ-sañ kenn du ko waxati kenn waaye wax ñu bëri jaru ko non non gis naa ko te kaw tribune moom mu wàcc gars yi ne ko ama yaa yëngal pikin mm-hmm. mais maa yëngal parcelle <laughs> yëngal Pikine encore ba pare di yëngal di yëngal Pikine tamit. bu bëree Pikine saa yi ma bëree Pikine bu làmb am ñu woon ne ma dafa mel ne fii nga doon bëree fii nga dëkk yàlla moo def loolu ko xam nga ñoo yëngal fii di yëngal fépp incha allah. kon moo doo yëngal parcelle yëngal Pikine. waaw ñun ñoo yëngal fii ñun waa parcelle ñoo yëngal parcelle yëngal Pikine. waaw waaw waaw waaw parce que démb da ngaa ñoom ñu commencé yëkkate la parcelle Pikine mais yàlla ñun la jox ndam li ci lépp ñun ñoo gagné incha allah classico la ah, ah. Real Barça. <laughs> Père Ndiougaré la mu waxoon xanaa kon daa xaw a niru dëgg moom de noonu na Pikine suñu ay kii lañu ay gàtto lañu xaw ma la waxoon sax moom. amul niru dëgg ku nekk xam na logique gu làmb dugg nañ Pikine dugaat fa yàlla may ñu ndam làmb dafa am logique comme ni ma la wax coow dina bari na bari dina bari rek mais fu muy mujjee ku ne dina ko xam. te des na beneen tamit petit loo mu ngi fa war a am combat incha sa doom waaw moo ngi rakku soog kat moo ngi sa doom ak rakku soog. allah di ñaan yàlla may ñu ndam lu rëy rëy comme bi mu ñu may démb rek incha allah. loolu kañ la. waaye dans un mois waaye dans un mois incha allah waay. mu dul nag yéen ñii nag wax ak yéen de. ah non <laughs> mu ngi noonu daal <laughs> mu ngi ñaay ta nga fa ñaay am na lu ko naqari démb. ah mais naqar bi daal nay nay continuer si suñ diggante ñoom rek na naqar bi di continuer rek incha allah waay waay <laughs> suñ diggante ak ñoom parcelle bi incha allah na naqar bi di continuer rek. <laughs> nga yaakaar parce que fii yak yaak amaana ci kanam. nga yaakaar bu ngeen ca yeggee bi yoon du ñu bañ loolu. bañ bañ bëgg rek incha allah ah, non yàlla baax na waay waay. bu yàlla war a jox ndam ba tànk te la koy na rafet. Mm-hmm. tey di yóotu dara isam la tey bala nga koo jot jaar ci ay bakkan wala deret du bari am na loo xam ni jaru ko mm-hmm. am loo xam ne jaru ko mm-hmm. lu waaye di ut mën na ko ci yar ak teggin discipline xam nga yàlla may la ko nga jëriñoo ko mu xañ la ko tamit nga dem xoole leneen c'est pas la fin du monde nañu bàyyi xel xam nga ci Sénégal lañ nekk ñoom dañu ñëw fekk ñu yoroon Sénégal dañuy demit Sénégal continuer di nekk Sénégal kon buñ ci nekkee na rafet jël bi rafet wax yi rafet mhm. bañ benn jeune ci violence parce que violence deful dara mhm. deful dara jeunes yooyu kon loo leen di wax ñoom jeunesse boobu wax ñu ñu bàyyi xel rek parce que tey jeunes yi ñoom la ñu yaakaar ñu réew mi ëllëg mhm. ba tax na dañu war a yor ay loxo yu set xel yu sell ba nekk fii di waxante yu ñaaw di jëfante yu ñaaw jaru ko kon moo tax yu bëri jaru ko adduna da ngay dem bàyyi fii loo mën na nekk na rafet ndax nettali bi rafet mais kii ma doon fi ut lii isam lax ba mu fi nekkee lii wëg lii dërët yi tuur na fi ay bakkan rot nañ loolu jaru ko Sénégal loolu xaju fi xaju fi daal xaju fi dañuy bàyyi waat xel rek xam nga yàlla yàlla mooy maye ndeysaan waaye di ut mhm. yàlla mooy maye neex nit ñi bu naqaree nit ñi lu yàlla war a may doomu aadama da koy may kenn mënu ci dara. a bëgg. Ah, Eumeu Sène ngay toppandoo. Eumeu Sène ngay toppandoo de. ay ah, man toppandoo ah, <laughs> moom affaire militaire. am naa ko te solu ma ko. tere boobu tere bi Eumeu Sène bi Eumeu dem. am naa am <laughs> eh, nga sol ko ñu gis ko kon. <laughs> dóor beere dañoo dañoo bëgg nga dóor beere bi. ko bàyyi nañ ko bàyyi gars yi daal. ah. damay jeexal ak yow xam nga ama moom am na loo ko wax waaye manager am itam defe naa ne mayu la jàmm de Abdou Bakhoum waaye <laughs> kooku <laughs> waaye nag xam nga yàlla moom lu muy wax rek borom xel yi lay waxal sama xel yàlla topp ko ci dara dara dara moo tax wax ak moom sax yàq wax la dañ ko bàyyi noonu muur nag Abdou Bakhoum bul wax loolu Abdou Bakhoum yoru tam xel non kooku yàlla topp ko ci dara dañ jabootam vraiment bu amee ay doom yu mag wala war nañ di wax ak moom parce que wax booy booy booy seetaan commentaire sur cent commentaire quatre-vingt-dix-neuf yëpp ay safaan la te yooyu yëpp moom moo koy yóbbee boppam na jéem a nekk nit wala bu waree faji ñu ko faji ko mais est daa wax lu ay moom da daw combat parce que da ngay booy ñu da nga yor ordonnance na lay wax ci waxu gu wérul la dëkk te xam nga rek wa tontu gu wérul yàq ay wax la aw muy wax ju ma yàq baal ma denc ko